sant di leen ziara di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp rawatina télé bi ñi nga xam ne ci laa bokk mu suñu télé di Moukhaddamatoul Khidma moom ko kon suñ taxawee di ma interview danaa ci sawar lool maa ngi sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen remercier nag seen liggéey d'abord avant tout ci tëggéey bu rafet bi nga xam ne Moukhaddamatoul Khidma taxawee na ko ci Touba laay wax waaye du ma ne sax jumaa ji rek jumaa jee ko taxoon na jóg waaye day lépp loo xam ne euh, yëfi diine la rek mu taxawee ko ci jiw kon noonu ñu ko si sant di ko ci gërëm di leen ci gërëm ñoom ñi nga xam ne ñoo yor lool ginnaaw loolu itam ñi nga xam ne moo ñu fendi tey mu dajale fu mu màggal gu mag gi ah màggalu xéewal la màggalu jàmm la ah sant sëñ Touba rek di ñaan sëriñ Touba yàlla gën ñoo euh, yàgg fi sa yàggal fi sëñ Muntaxa yàggal fi kilifa diine yëpp waaye kenn ku nekk xam na ni sëriñ Touba moom biram alay kuleyaan yi nii rek lay def lu ñëw rek jàpp la nga xam ne la mu weesu moo moo koy raw sëriñ Touba ni ko amul tànki kanam euh, amu amul tànki gannaaw tànki kanam la am kon nag tey li nga xam ne mooy màggal gi ginnaaw biñ ci duggee ci bisimilah rahmaani rahim génn ko ci alhamdulilah rabbil alamin tey di cérémonie officielle bi nga xam ne fi la ndawi gouvernement bi mën a ñëw daje fee gane sëriñ bi muy les ambassadeurs les chefs religieux et tout ça ñu war a daje fii waxtaan sottantewaat xalaat gën a saafonte loolu daanaka say boo ñu ne loolu mooy eh, mooy li nga xam ne moo waral dëgg-dëgg ñuy wax cérémonie officielle man nag sax damay wax ne du cérémonie officielle cérémonie <laughs> religieuse la waaw. waaw taxawaayu Moukhaddamatoul ma ku ne gis na ko ci waxuma ci màggal kese mais daanaka activité boo xam ne yoonu murid mu ngi koy amal rek moom seen taxawaay ci ci loolu. waaw loolu laa la wax dama ni la moom laa njëkkee dama laa xamal ne la dama leen di remercier ñoom parce que Moukhaddamatoul Khidma dama cee bokk. sooy boo ma ne quatre membres yi nga xam ne ñeenti ñëpp toog xalaat ñun ñeent ci laa bokk waaw muy man sa Abdoulahad Bousso Muxtaar Abdoulahad Moutalib Seexuna Jata radiyallaahu taala anhu yàlla ko yàlla doon leer ñun ñii ñoo njëkk a toog xalaat lii di ci dox di ci dox tey ba mu mel nii kon su melee nii tey man sant laay def gërëm laay def kon nag su ma gisaatee seen liggéey mel ni nga xam ne moom la taxawee ci tuubaa ba lépp loo xam ne jëm ci diine rek dootuñu xool kenn ku may waa Muxaddamatul Xidma loolu liggéey la bu nangu la Serigne Touba sëñ Saliou Mbacke waxoon ne noonu ban fa demee ne Serigne Touba daan ne lii ku ne bëgg na ko waaye yéen la ko fi Serigne bi dencal. moo tax keroog ba xamee ne am na ñeneen ñëw bëgg a dox li ñuy dox bëgg a def noonu bëgg a seetal jumaa ji waaye Serigne Saliou bañ demee ba ñun ñu dem fa di wax ak moom daf ni yéen de lii de denc la woon boo xam ne yéen la ko fi Serigne Touba kon yéen yéen a seen maam yi ñoo toppoon Serigne Touba. kon moo xam ne ñun dañ ci amoon sas woo xam ne mënuñ cee oqat waaye nag alhamdulilah jàpp gàcce ngàllaama président bi muy Serigne Affe waaye gàcce ngàllaama ñi nga xam ne ñoo fi nekk nga xam ne ñoom taxaw nañ ca xam ne lii lu am solo la ba tey mu mel nii mu leen àgg fii mu àgg te da koy gën a yokk itam day gën a weesu bi yëpp kon nag du man lu may remercier képp koo xam ne yaa ngi bokk ci Moukhaddamatoul Khidma muy góor muy jigéen ci ñëpp ci wàllu góor ñi jigéen ñi parce que léegi dem na ba jigéen ñi gis nga ni ñi nga xam ne nii ay ayloo jumaa ji waxtu wu ne mu ngi set nga gis góor ñi niñ taxawee kon loolu lépp liggéey bu Sëriñ Tuubaa mu nangu la waaye nag ndokk yàlla bi mu nangoo ci suñu loxo ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum